ci euh, honorable wax ñoom boo toppee seen daanaka saa yi moom moom mbokkam moom du leer euh, mais dem nañu décision de justice jóge ci Ziguinchor tey euh, grande instance Dakar dëggal ko ñu war a ñu war ko jox ay fiches de parrainage mais ba léegi xamaguñ ndax jox nañ ko wala joxuñ ko te moom nee na duñ ko jox ban jàngat nga am ci loolu. waa d'abord bi ci jiitu ñu ngi am luñ rafetlu ci waxam mooy lim ñi xamal ne duñ jox Ousmane parce que it nit boo ko dara umpee. nga xamal ko ko dafay teel a xam ni muy taxawee. Mhm. Euh, kilifa gi dinaa la xawa a maanaam ñàkk a yow ci ñett anam ba ñeent anam ci terme de débat rek nag. Mhm. Euh, bi ci jiitu mooy bu fekkee dañoo jël ay nit ñoo xam ne dañoo jàng droit Sénégal couverture leen ñuy àtte te lépp luñ àtte loo xam ne lu ñeel état la. lu jëm ci wàllu dëgg te état jël wu nar a jël dëgg jooju état du ci xaar recours day jël dëgg jooju ba recours ñëw lu recours wax ñu soog appliquer recours boobu. loolu mooy première d'abord Saaba si fay dafa indi ay argument yu leer naññ yoo xam ni nit ki nga war a raje fii nga war a jaar ak fii ak fii ak fii. Mhm. da ngeen a fi ngeen waroon a jaar commencement ou fin. teg ko ci doole teg ko ci demee maanaam comme ni nga maanaam gisee sa gis-gis ci débat mooy du bokk du bokk pour quoi du bokk du bokk pourquoi du bokk réponse bi mooy du bokk rek ñun dina bokk dina bokk pour quoi dina bokk parce que c'est normal mu bokk parce que loi moo wax ni dafay war a bokk ana lan mooy loi bu fekkee da nga ñëw ci ñun liñ xam muy li ñu wax charia exemple daf la tegal ne la bala ngaa julli na nga set gannaaw bi nga setee na nga jàpp gannaaw bi nga jàppee na nga aw ci yoon yi ak yi ak yi gannaaw boo ñëwee ba pour julli sax nanga yéene mais bu fekkee nag ne yow dañ na loi yi yëpp yàlla teg am naa doole joo xam ne jege naa ko ak loo ko jege jege jege amoo benn droit ak benn yéene ca moom boo xam ne ni da ngay ñëw rek ne par la force damaa war a ñëw taxaw bu imaam bi kàbbaree ma julli déedéet. fa imaam ba aw da fay aw pour ñoo mën a ànd ak imaam bi julli yéen nag maanaam problème boobu ngeen xaw a am ak sénégalais yi mooy fii réew mi ñu fi bañante nekkuñ fi mais ñu fi du dégluwaante ñoo fi nekk ak ñi nga xam ne nii maanaam tey dañuy fàtte li nga xam ne wala fa nga xam ne awoon nañ fa parce que tey la preuve président de président de la république monsieur Macky Sall yeneen nañ ko président bi mu doon parce que yàlla mooy yoon nguur di ko jox ko neex mhm. te nee na man maa daggee ci cër ci sama nguur gi mhm. nekkul ni m'importe qui laay jox nguur ni sénégalais yi toll yàlla dogal moom mu ñëw jaar fu métti ci lim mu gàtt nekk président assemblée nationale nekk maire de Fatick fi nga xam ne nii tey say wayjur fa lañ nekkoon nga jiitaleen nekk seen maire ñu ne déetewaay nga nekk premier ministre ñu ne déetewaay nga ñëw ñu ne faf sax loolu doyut nga nekk président assemblée nationale doyut faf sax ñëw yàlla ne la am jiital sénégalais ku fiy kilifa diine ku fiy kilifa aada koo xam ne ni teg nga dara wala teg koo dara donte ñëpp dara lañ sa baat bii bu waxee yaay per de la nation mu neex ak mu naqari kon kooku bu ñëwee taxaw dafa war a tënku ci droit parce que droit boobu muy tënku moo koy permettre tey ëllëg lépp lu mu war a wax ak lépp lu mu war a teg bu jalgatiwul yoon yoon boobu day ànd ak moom ca lam wax pour dooleel goo xam jooja mm-hmm. dama xaw a ruslu sax ci benn côté saaba si fay wax na ñu retourné waat ñëw yóbbu yëf yi fa nga xam ne la maanaam lañ gisoon ñun suñ gis-gis yëpp mooy kasali saaba si fay wax rek ñu ne noonu kon nañ demaat yóbbu ko ci tribunal de Dakar ñu attewaat ko mais fi nga xam ne ñoo waroon a kase kase virgule bi bu jëlee wax jooja ne nañ dem ci saaba si fay mu atte wax nañ dem ci tribunal Dakar mu atte wax ji tribunal dakaar indi yeneen argument yu gën a dëgër ya nga xam ne saaba si fay sax taxawoon na foofa mm-hmm. ci tout le côté nag ba pare jël wax jooja kese ci côté yépp maanaam liñ naan fatt fépp amul fenn foo xam ne nii war nañ faa mën a jaaree pour ne Ousmane Sonko du jot ficham man pour man suñ ma jëlee tey yóbbu ma exemple ñaanalu ma ko yàlla mais sama bopp laa mën a misaal ma def tojaange ñu jël ma yóbbu ma kaso exemple ñu ne léegi maanaam def nañ enquête yi ba pare enquête yi mu def dañoo war a jàllale Cheikh Tidiane Niass ndax Cheikh Tidiane day xaar ba tribunal àtte ko ba pare ñu soog di ko jàllale. wala dañuy tëb rek ko. dañ koy jàllale maanaam étape par étape la que kii tuuti parce que kii def na yoon par yoon li ma li ma lay wax noonu sëñ bi maanaam doo ko bëgg a dégg. erreur de mandat dépôt dafa am. waaw ak coupé yi commencé na de. wala déglu boobu. acca bismillah no ba jànguñ jànguñ comme li ngeen jàng ci droit. mais yàlla dogal ndax xam nañ lu bari lu li ngeen xam. Mm-hmm. parce que ñu ngi gëstu nag. Ah, mais dama la jox exemple xam nga exemple pas xam nga exemple laa lay jox dama ne la mandat dëpp bu ñu koy def nit ki. nekkul maanaam. tribunal ñoo ko def mandat dëpp dafa maanaam man exemple ñëw ma ci côté mandat dépôt yéen maanaam dépôt ngeen réew mi yépp moo tax yow suñu mandat dépôt nga may misaalee dama ne la man su ma exemple su ma ñëwoon sàcc téléphone kii si misaal ma ñëw ñu ñu attend attend attentif ma xam ne nu ñu ko waxee français yi buñ ma kiyee ba pare ne ma kii dañ koo war a jàllale jàllale boobu ñu war maa def avant may àgg ci euh, maanaam juge bi pour mu àtte ma. jàllale nañ jàllale nañ ba pare. Mhm. nekkuñ ne dañ naan dañ ko teg fii. absolument bu amee 3 jours nekkuñ ne dañ ko teg fii mu continuer xaar juge ba dañ may jàllale ba pare lu waral loolu. parce que du ay kayit duñ signé la pour ma war a jàll. décision de justice la décision de justice la. décision de justice boobu moom laa lay leeralal ne la su jógee ci saaba si fay retourné waat ñëw ci justice justice bu Dakar bii. coon mhm. muy coon. kon amu leen woon benn droit lu dul joxaale ko fiche de prénance am mu teewaale ko antanda ba pare su fekkee nag yéen dem ngeen defi seen recours comme ni ngeen koy waxee parce que jàpp naa ne recours ba la ca war a xew xam nga ko parce que yow nee nga duñ ko jox fiche am kon yow àtte nga avant justice di àtte sa xew. non sama analyse laa def. non analyse mooy su dama yaakaar naa. ak ak duñ ko jox du benn. yaakaar da nga waroon wax ne yaakaar naa ni duñ ko jox. Mm. mais yow da ngaa ne duñ ko jox. duñ ko jox nag moom ñëpp xam nañ li muy bëgg a firndeel rek wax jooju mooy. Ousmane Sonko mësul leen o ci lu dul ak droit mësul ci wàcc. Mhm. mësul ci wàcc du benn yoon. pour pourquoi pas mësul ci wàcc mooy maanaam projet yi ci am yépp yu fi am yépp mësuñ ko oo mu ñàkk leen uy si mësul am au contraire da ngeen koy oo mu leen uy ñu dagaan ko bala cay xew yépp xew ca ak projet yi ci mënta am yépp mais nag kon réew bu tollee foofu bu ñu ko bëggee defar nañ ko defar ci en taabul ñu waxtaanee réew mi. parce que réew mi kenn ku ci ne da am cër boo ci moom comme ni ko sama frère bi waxee nga bokk ci opposition tërëwul yow mi bokk ci opposition man mi bokk ci opposition am na foo far am na fu ma far da nga bokk di xeex jàpp ne Abdourahmane juuf mooy sama gis-gis ne bu jëlee réew mi réew mi dina changé am nga ci plein droit. Mm-hmm. sama gis-gis man mooy président Ousmane Sonko moo mën a changé réew mi am naa ci plein droit sa gis-gis mooy Amadou Ba moo mën a changé réew mi am nga ci plein droit gis-gis. bu maanaam bu tënkoo day tënku ci justice ëllëg moom moo ñuy àtte ne kii moo jël réew mi kii moo mën a dem kii moo mënta dem mais justice boobu nag bu ne Ousmane Sonko nañ ko jox fiche de parrainage mën naa dem. bu leen ci jaaxee rek mu laata. boo leen sonn seen bopp nag bàyyi leen ñu dem war war war daal. parce que DG aussi. gis gis nga Mass. nañ dëgg. man mosuma gis na ngeen dalal ku bokk ci APR ñu nangu ne maanaam bu demee ak Ousmane Sonko ci terrain bi du ma ko du dem rek du bokk. mais mbër nag bu fekkee gëm nga ne yaa ko man te nanguwoo sëgg bëree te heure bu ñu waxee nga ne du dem kon ça veut dire que mooy bu demee duma la. ah bon. ah dëgg mës nga dalal fii moom bu mu fi toogee ba léegi waxul bu ñu demee duma la. Mass nga koy laaj ne ko loolu si yan argument nga ko si yan baas nga ko teg. ca base leer nañ ko rek débat la comme lan. c'est-à-dire li ci jiitu mooy. li nekk ci xol lan lan moo la koy prouver. d'accord dinaa ci ñëw tuuti. Ah. comme comme tey yaa may laaj yaay yaay mas. <laughs> non débat la rek parce que débat la. parce que parce que da nga wax rek sànni gratuitement quoi. dinaa ci ñëw tuuti lépp nag yéen nangam. d'accord bien sûr dinaa ci ñëw tuuti. fan nga ko teg. ci argument yu leer. yan la. bi ci jiitu mooy. Hmm. Ousmane Sonko dafa ñëw. oo leen ci débat owu leen ci xeex owu leen ci daal. Ah. indi livre teg. attention indi livre teg. au jeunesse bi. ci lu xam lan mooy seen réew. ana zircon bi nekk ci réew mi ana phosphate bi nekk ci réew mi ana gaz bi nekk ci réew mi ñaata ay jeunes nga am yoo xam ne nii ñu ngi xëy mënuñu am liggéey extra extra ba pare wane. mais comme comme débat la sax. Mhm. c'est-à-dire Macky Sall. Mhm. moo rawoon ci élection présidentielle yi weesu. merci moom bokkatul. merci Amadou Ba xamuñu li muy peese. merci Idriss Seck moo desoon ak Ousmane Sonko. Idriss Seck Abdourahmane Diouf bàyyi na. Mhm. kon kay ki fi ki fi mën moom lay nuru. ba keneen di feeñ ak dëcc. loolu mooy sa argument waaw da nga laaj mooy gagné. jërëjëf Cheikh bi maanaam defal nga ma virgule bu gàtt rek. c'est ça maanaam yow yow. <laughs> nu bay parce que ne débat la. c'est-à-dire maanaam yéen. Hmm. bir na leen ne bu ngeen tëddee nelaw Ousmane Sonko dama ko jëlale parce que dem ngeen ba naan sax Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ni maanaam moom lañ jaakaarle moom lañ jiitalagum parce que jël nañ fii 111 bi pour laaj prénance yéen a ngi koy galgalaal te dem guñ fenn kon ça veut dire que yéen ñemewu leen sax ko Ousmane Sonko jiital. yow daal ñemewu leen rek nga wax may ma cheikh bi may ma ci débat politique nga may indi. waaw danaa danaa la ci indi. waaw ah, moom Amadou Ba Amadou Ba. Ah. yàlla dogal na mosul laaj benn maire fii ci Sénégal. te daa perte parcelle mosul bëree. te daa perte parcelle mosul bëree. Ah. te Ousmane Sonko moo jiital Jamil Sané yéen ngeen dem ngeen bu ka nekkoon parcelle ñu duma leen ah. preuve bu leer noonu amul Ousmane Sonko dem dëkk lool mooy sa argument ci la bokk. Mass bismillah. ok jërëjëf xaaral ah déet déet continuel. Mass Mass xaaral ma wax ko ne ko argument yooyu. ba tuuram ñëw. non non yow dafa laaj argument. xaaral man damaa bëggul dara. ok yow nga wax contre man kii wax contre man. ma toog di xaar le tour. mais amul problème dañu daa yëfu yëfu yëfu ndax débat la ñu def. d'accord d'accord d'accord dama ne. dama ne. li mu wax nii. c'est-à-dire que dafa dafa tegwul ay Ousmane Sonko. Mm-hmm. xolu sénégalais si moom la ñu ne. Mm-hmm. teguwul loolu foog mu am lu ko matérialiser muy ay élection élection yu ñu mujjee dem muy élection législative yi Ousmane Sonko boo ko booleek ñëpp ñu mu àndaloon. élection législative taxawu Sénégal. Mm-hmm. taxawu Sénégal de élection présidentielle. waaw su ma su ma su ma paree su ma paree. loolu nga bañ léegi pare bi nga bañ léegi. ah, ah ok yow sànq du ma bañ nañ la nga jël baat non bi la bañ léegi may nañ la léegi nga prox ndool ba ñu demee non may ba non dañ ne nañu bàyyi ñu déglu. déedéet déedéet non non non xam nga moom may may naa ko interpellé naa ko mu wax ma may ko du dégg dama ne saa à dire xam nga li ngay wax mooy sànq li ma doon wax ne du dañu bëgg jël sénégalais yi nax leen wëndal leen xam nga teg leen si suuf ay Ousmane Sonko Sénégalais yi moom lañ àndal dafa bind livre wax lim bind livre wax lan la. dama jàng livre. lim bind livre ay déballage la ci def wax nga ko léegi gaz pétrole zircon. Ah, wax si loo xamante ne nii. Mhm. c'est vrai xam nga xale boo nga xamante ne dafa doon xale. Mhm. toll ci wut. Mhm. nga ñëw. ne li fi nekkoon depuis indépendance ak léegi dara baaxu si. man bu ma ñëwee nàngam ak nàngam mun na la gëm sur parole si wax rek la la gëm mais tu n'as jamais été à l'œuvre nekkul jamais été à l'œuvre non non déglu ma rek ma wax la. non li ñuy wax ci livre bi jamais été à l'œuvre ok d'accord mais il bi daf ko jëf. ma ma du ma du ma toog. loolu personne contre man ma bañ a wax li ma war ah, ma tontu. nga may ma ma tontoo gu ma di tontu gaa ma ñëw ci moom ma tontu mu dagg ma xam nga tey Ousmane Sonko dina su fekkee da ngay tontu soo ma tontoo ci argument bu ma gëm. waaw moom laa la gis ko ma d'accord la ko mais boo bëggee jël argument bu maanaam wan ñu ne Ousmane Sonko baaxut mu ne lépp ñun. ok comme comme man ni ma Amadou Ba gënale la. ok comme si Abdourahmane ni mu hmm. Sonko. moo moo fi ji ñooñ Mamour Diallo 94 milliards. leeralu ko leen ko xale yi toppe. leeralu ko leen ko. Ousmane Sonko tey jii euh, euh, ah. militant Abdourahmane Diouf bi mais Ousmane Sonko waxal na leen fi ñoom dañ ko wedd ba ba teg si suuf waxal na leen fi si élection yooyu passé du dëgg waxal na fi Aliou Sall. ne moo ne ne moo sàcc six mill milliards ba xale yi di ko laaj quatre seen quatre cent mille. ok honorable donc pour pour vous dire que de. Mm-hmm. non attends mm-hmm. attends c'est-à-dire pour vous dire que de kooku li muy wax yëpp. je pense que ne bu fekkee foofu nga bëgg a. sukkandiku yooyu ba bu fekkee ne foofu nga foofu nga bëgg a sukkandiku. Alioune Sall pelante wu ko. xoolal borom ko ci yoon. bu fekkee ne foofu nga bëgg a sukkandiku. d'accord sukkandiku bu fekkee ne foofu la bëgg sukkandiku. naan sénégalais yi Ousmane Sonko la ñu loolu amul. Euh, la preuve wax na ko léegi élection présidentielle yi ñu génn mais c'est assez simple naka la demee euh, président Macky Sall moo am 2 millions 500 mille voix ki si topp di Idrissa Seck am 800000 voix. 2019 ki si ki si topp. di Ousmane Sonko am 600000 donc amagu fi voix yoo xamante ne. na ko permettre mu gagner ay élection présidentielle législative yi passé maa ko doon lim léegi ne la dem naa ay élection ànd ak ñëpp waaw ngi am boo ko boolee un million quatre vingt mille voix ok d'accord d'accord nañ ci ñëw Benno Bokk Yaakaar am un million cinq cent mille boo jëlee sa moom lan lay am lan lay def c'est-à-dire que ko teg si benn argument boo xamante bi wóor na ñu naan Ousmane Sonko ay Amadou Ba gañewul parcelle mais loolu ku ko wax ñeme yàlla rek. la jàpp ah. Amadou Ba n'a jamais été candidat à la mairie des parcelles moo ko bootoon. waaw mais c'est la première fois. honorable c'est la première fois c'est ay élection def ko suffrage direct. ok d'accord du dëgg d'accord eh, Amadou Ba n'était pas candidat au Parcelles Assainies le candidat s'appelait Moussa Sy ok loolu débat bi sax bu dëgg ñu gagné ko vraiment du débat bi donc il faut arrêter euh, ces histoires là di jéem a réeral Sénégal yeeg yooyu ah, merci jërëjëf jërëjëf tam euh, Amadou Ba du Ousmane Sonko c'est pas possible mais sur tous les plans parce que Ousmane Sonko sur tous les plans Ousmane Sonko 15 ans impôt domaine nekkul nekkul xoolal ñu leen di nax di ñu leen di nax di leen wax ay waxu caaxaan lu ngeen xam ci moom dina leen ay taxaw ne Ousmane Sonko 15 ans 15 ans musul laal dërëm waxtaan bi neex. mais Cheikh mais mais dama war a laal dërëm. donc dañu waxtaan rek dama war a laal dërëm. waaw mi nekk impôt domaine dañu war a laal dërëm. bi muy wax di di leeral lii yëre njëriñ réew mi bougé